asalaamaaleykum mbokk internetu bët set ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy faral di baaxee di defee saa su nekk rek euh, nee naa leen Lalla Aïcha ngeen di àndal ak Moustapha sama caméraman bu ñaawul bi euh, di leen leen nag euh, ngeen baal ñu àq baal naa leen yàlla nañu yàlla suñu borom nangul suñu koor te may ñu wér may ñu kattan kenn ku ci ne li nga bëgg ci sa biir xol yaa ko xam yàlla suñu borom defaral la ko ci barke Alxuraan tey nag comme niñ koy faral di baaxee di defee rek nee naa leen ñun ndaanaan bu fi nekk ci réew mi rek ak wala fu ndaanaan nekk dañ koy jëli indi ko benn ndaanaan nag ndaanaan ndaanaan yi nekkoon fi muy pam Mor Lo Mbeur gëj nañ ko gis euh, namm nañu ko woowuñu nag sax dañ ko bett daa bañoon génn moom la ñu ñëw setti tey fas yéene waxtaan ak moom lu gàtt rek bi ci jiitu mooy baalu ko ak rek mu baalu sénégalais ndax am say fan dem bàyyi leen fi ñaaw na trop euh, Mbeur ñu ngi lay nuyu. yee eh, Lalla maa leen maa ngi nuyu ñëpp di àdduna bi yëpp di baalu ñëpp àq tamit di leen baal àq quoi di ñaanal yàlla def fi jàmm quoi di ñaan koor gi suñu borom dugg ci bismillah génn ci alhamdulillahi rabbil alamin naka mu nag waaye lii nag ci jàmm rek quand même. <laughs> ñu bu baax mais mbër gëj nañ la gis fan nga nekkoon ba pare nga ñëw mel ni danga ngaa changé xaw a yiiw xaw a yaru nii nu mu demee nii. waaw no àdduna moo dem <coughs> àdduna moo demee noonu quoi xam nga àdduna moom boo si nekkee xam nga ay booy lañu ñu woon doon dund làmb xam nga di ko dund sax ba léegi mais nit dafay màgg daal ci benn côté quoi xam nga léegi nag yàlla xam nga may ñu tukki ñëw nag xam nga. léegi nag ñu ngi nii xam nga nekk fi daal di nekk ci liñ nekkoon rek mais yaru moom dañ ko mus a def. yow sa yaru yee. Euh, gëj nañ la gis fan nga nekkoon depuis at yi yëpp. waa dañ tukki woon nag dem États-Unis xaw nañ fa yàgg mais ñëwaatoon nañ depuis deux ans après dellu def trois ans ñëwaat nii waaw ñu ngi ñëw nii nag quoi parce que dama ñibbisi woon parce que sama mère dafa feebar sama yaay. gënoon tax ma ñëw daal affaire yooyu xaw AVC quoi. Mm. loolu gënoon mu indi xam nga ma nekk ci loolu moo tax ma ñëwee ba léegi feeñu ma fenn quoi. mais mi ngi tane bu baax. waa mi ngi tane bu baax ñu ko ñaanal ak ñëpp ñu tawat suñu borom yëkkati leen quoi ci barke Seydina sallallahu alayhi wa sallam. Euh, kon mbër daal dafa moodu moodu yi daal mu mel ni bëri na tamit aussi ci ci ci ci ci làmb ji ñu baree bari bugguma sax tudd ay tur ndax dama ci bëri ay xarit ñoom ñëpp moodu moodu ji nañ lan moo waral lool dangeen ngeen daw wala Sénégal dafa neexatul lan moo waral lool. no Sénégal neex na sax mais àdduna moom lépp looy def di ci gis sa teraanga rek di ci gis sa bopp da nga jàpp daal parce que làmb métier la mais leneen tamit métier la làmb kese nekkul fii ko métier bu ñu gisee leneen loo xam ne ñu ngi ciy suturlu di taral suñu waajur ak famille dañ ciy jàpp tamit parce que làmb temps bu gàtt la te xam nga bu ñu gisee leneen tamit du ñu xaar daal dañuy dem liggéeyi xam nga jàpp ci loolu taral suñu waajur tamit quoi mais teewul suñu xol ak lépp lu ñu mën a am tamit làmb moo ñu ko may daal. waaw ba tey ñu ngi ci làmb di ñaanal ñëpp nag ñi ci nekk. <laughs> mais tey làmb ni mu ni mu ni mu ni mu ni mu suuxee ni mu demee suuf tey ku xam mbër xam Pape Mor ba muy nekk ci làmb ba làmb daan neex nga am fi tàkkusaan bu ne nag euh, def fi lu ne daan feesal léegi nga ngay toog fële di gis actuellement làmb bu amee daanaka ay benn benn nit nga fay gis yenn mbër yi ñu bëri bàyyi nañu promoteurs yi xanaa ku ci mel ni Gibson Production lañ fiy dégg euh, sooxe boobu mu def ban ban ban gis-gis nga ci am waaw non gars yi ñu ngi si de pourtant làmb boo xoolee soo xewul c'est feebar bi la rek ak affaire yi xew nii moo tax affaire yi xaw a def standby nii mais bu affaire bi jeexee ñëpp dañuy delluwaat ci métier bi ci job bi. CNG bi tamit li gars maa leen di dégg ñuy kaas ak di kii quoi mais anyway Alioune Sarr moom li ko gars yi di blâmer leen la pour mu ñëw génn moo tamit na wàcc ci terrain bi quoi parce que lamb bu demee ba am problème mu ay sponsor moom tamit day jot mu génn parce que tamit moom moo yilif làmb ji. da koy jaral mu sol sa dàllam dem ci entreprise yu mag yeeg affaire yooyu pour waxtaan ak ñoom parce que làmb ñu ciy dund dafa bari du affaire bi du toog sa bureau rek di dagg mëninu gaay ak yooyu ku wax dara nga aj ko affaire yooyu yenn saa yi dafay laaj nga wàcc ci terrain bi dem waxanteeg kii entreprise yi mag yi nekk fii pour ñu jàpp ci làmb parce que boo xoolee làmb mi ngi dem faay ñoom ñoo si war a jàpp nag ñoom ñi ci nekk nekk kilifa yi comme lu nit def ñu dagg la day jot nag benn instant bu dara xewee ñoom ñu wàcc ci terrain bi comme gis nañ sponsor yëpp daw nañ dañu war a wàcc ci terrain bi dem ci entreprise yu mag yi wax ak ñoom parce que am nañ ci part de responsabilité parce que mbër bu def dara ñu aj la kon nag bu problème amee ñoom it dañu war a décanter situation bi wàcc wax ak nit ñi. gaa nag ñi ngi ñaan ñi ngi wax ñi ñi ngi wax dañu bëgg mu jóge fii ñi ñi ngi wax mais na def li mu war def rek nit ñi tamit topp ci ginnaawam parce que làmb noonu la quoi. Euh, sponsor yi lan moo tax ñu daw làmb ji dafa doxatul benn bi mooy dagg yi ñu leen doon dagg tamit gis nañ ne dafa bëri ak aj yi yow lan moo ci sa gis-gis parce que tey mbër bu meloon ni tey Pape Mor def benn affaire nga aj ko trois ans wala nga aj ko deux ans est-ce que gisoon ni supporter am mën nañu dem ci keneen ko taxaw parce que xam nga làmb taxaw taxawul benn place ban gis-gis nga ci am. waa non comme lu may wax rek làmb moom anyway aj bi bëri na boo defee dara ñu aj la soo tooñee moom laa lay wax léegi léegi nee naa la Alioune moom moo war a wàcc terrain bi parce que tamit làmb boo ko jiitee da ngay wane li tax ñu teg la fa dem uti ay sponsor war na sol daal daalam dugg ci entreprise yi parce que moom la fi yàlla teg comme ni mbëri di defee erreur ñu leen di ajak di leen dagg ak affaire yooyu moom dafa war a wane li mu doon ci làmb maanaam wane ne moom mooy njiitu làmb moom mooy lépp kon nag dafa war di jàppale gars yi loolu mooy yoon parce que làmb ñi si dund dañoo bari daal. comme naa da nga gis ne liggéeyam dafa des. waaw des na parce que làmb du toog sa bureau di dagg xaalisu gars yi yenn saa yi day laaj nga ci terrain bi. dem lijjanti li xew situation bu amee da ngay wut solution dangay ngay woo ñi nga war a woo ngeen waxtaane ko loolu mooy yoon mais du chaque instant rek aj nañ kii dagg nañ kii rek ngay dégg. du loo xamante ne ñoom dañ ko dem wuti waa CNG indi ko ñu ne ah sponsor bi CNG moo dem wuti ji ko indi ko fii pour mu jàppale làmb non ñoom dagg nañ mbër bi aj nañ mbër bi rek ngay dégg te loolu du solution bu yàggee làmb dafay dee. ndax mi ngi si si loolu la jëm nii sax parce que instant boo xoolee ñi ko mënoon ñëpp mënatuñ ko promoteurs yi Euh, kii ñoo kii kii ñoo taxoon sponsor yi ñoo taxoon ñuy tëgg lamb yu mag léegi kañ nga dégg ay làmb yu mag boo déggee benn sax balaa balaa balaa ñu koy bëre sax nga dégg ay yàqu na wala aj nañ ko parce que dañu am problème mu niin loolu mooy problème bi nañ ci jàpp ñu jàppalante ñu jëm ko liggéey làmb avancé loolu mooy yoon quoi. est ce que mbër tey mi ngi entraîné fële mi ngi liggéey comme bu xëyaatoon tey làmb soxla ko est ce que pare na pour dellu si waa waaw non instant ñu ngi liggéey xam nga du entraînement nag moom xam nga wàññi nañ ko ku dee ak sa bàmmeel quoi parce que xam nga dañu yaakaar xam nga ñu nekk soutien de famille am lu bari lu nekk suñu ginnaaw tey nag xam nga loolu moo gën a nekk suñu kanam parce que làmb rek du métier xam nga yàlla def na nekkoon nañ fi di bëri tey yàlla mu ñu def ñu ngi yëngu ci leneen xam nga mais nag teewul bàyyiwuñu ñi ci ginnaaw booy yi parce que am na booy yu fël yoo xam ne ñu ngi leen di jàppale nekk seen ginnaaw. waaw noonu la demee ñu ngi seen ginnaaw daal ñun daal lu mu laaj daal ñu ngi ci bu laajee ñu bëri waat tamit ñu bëri. <laughs> non non li nga wax da <laughs> li nga wax leerul de da bàyyi yokk làmb ji bu la soxlawaatee pare nga pour ñëw est-ce que gis nga fi actuellement ñu xamante ni say adversaire lañ taxaw nañ euh, mën nga ma ci wax ñaar ba ñett wala da nga bàyyi complète. non problème bi mooy boo xasee tukki boo yàggee soo ñëwee promoteur du la tëgg xaw ma loolu lan boo xoolee Kaaw Baye Paul bi mu demee bi mu ñëwee ut na combat ba sonn parce que ñu ngi doon wax combat ma Gris 2 xaw ma combat mujjul taxaw affaire yooyu parce que ñoom boo tukkee rek pour ñoom génn nga si làmb léegi xam nga doo fi ñëw tamit di la ma dem si benn promoteur wax ay tëgg maak ay yooyu non mais damay liggéey sama liggéey jàpp sama njaboot maay liggéey maay gagné sama vie li ci des nag xam nga dama koy bàyyi si loxo yàlla mais du question que ay dem si ay promoteur di non mais nag maa ngi ci làmb maa ngi topp ci sama ginnaaw rakk yi di leen ñaanal xam nga di leen encouragé. noonu la demee daal. mais tey promoteur yi bu ñu pare woon tey ñëw ne Pape dañ la soxla euh, pour nga bëri kan nga gis ne actuellement moo fi nekk sa adversaire kan nga war a jàkkaarloo. non man instant bi tey jii bépp xam nga loo gis rek temps la dama tolloon fi ma toll def li ma war a def wane li may wane preuve yi tey su ma doon def ñoom booy ñoo may soxla rek laaj ma ñu tëgg ñu maye ko jeex na tàkk. booy dañoo soxor de. non loolu du dara li <laughs> angale naan no matter what I don't care nobody. <laughs> dégg nga loolu. wala wala wala mais booy yi dañuy xeex booy yi dañoo tàng dañuy dóor mais booy wax ma si ñaari booy wala ñetti booy yoo xam ne ñoom actuellement buñ la buñ la dëkkoon yow pare nga. non c'est su ma tuddee benn booy dama lay may damay wax damay day day mel ni. waa exactement léegi nag ñoom suñu bëggee nañ ñëw ñu ñu laale ñu xool. mais anyway nag laam moom. xam nga yaa may dugal ci game boobu sax mais man maa ngi si beneen vibe su quoi. <laughs> dama leen di ñaanal rek ñoom ñëpp yàlla dafa leen tawféex parce que ku si ku si gis rek la bëgg a dimbali ak papaam. Mm-hmm. dama leen di suñu borom dafa leen tawféex dafa leen xéewal xam nga ba lu ñu bëgg lépp suñ borom dafa leen ko parce que làmb dafa metti yow fajar rek entraîne dafa metti ñoom ñëpp nag maa leen di ñaanal ñu am lu ñu seen waajur yi ak seen famille. Mm-hmm. man loolu leen di ñaanal parce que mbër bu nekk si làmb rek da sonn waaw parce que li lay topp dañoo bari xam nga ñi lay yaakaar dañoo bari mais yàlla na leen suñu borom defal teraanga bi bu gën làmb ba ñu nekk ci teral seen waajur te du ñu am benn paf quoi man loolu laa leen di ñaanal quoi. d'accord euh, mais te comme yow da nga Modou Modou ji Siteu tamit gis nañ li muy tukki bari na est-ce que bu pare woon pour pour jàkkaarloog yow pare nga. non Siteu mi ngi si combat instant yi moom ak Papa ñooy bëree xam nga comme yàlla def na am nañ combat dama leen di ñaanal rek ñu nekk ci jàmm préparé ko que le meilleur gagne waaw noonu la. mais ñoom ñaar ku ci ku ci daan parewaat nga. non Papa Sow mënuma bëre ak moom sama mag la. waaw mais Siteu. la boole non Siteu xam nga instant bi mënuma wax ci yàlla defal leen jàmm ñoom ñaar ñëpp ñu bëre que le yàlla may wér daal. léegi sa ginnaaw euh, ñu am ñaari làmb yu mag yu doon dëtmal euh, bu ku ci mel ni Modou euh, ku ci mel ni tamit Balla Gaye la ak Boy Niang ba Balla Gaye ak Boy Niang la ak kan. ak kii Boy Niang Balla Modou Lo Ama Baldé. ñaari combat yooyu lan nga ci wax. waaw non combat la Modou Lo Ama Baldé ay adversaire de taille lañ ñoom ñaar seen combat day neex parce que Ama Baldé sañ borom sañ-sañ la day ñëw te Modou Lo borom jom la moo bu ñu dajee da ngay gis làmb bu neex ñoom ñaar loolu moom combat du ko daax si année bi. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp ay bañkat lañ. léegi Balla nag. ah non Balla gaynde la Balla champion la Balla ndaanaan la Boy Niang bërekat la xam nga <laughs> ñoom ñëpp ay ndaanaan lañu dañ leen di ñaanal rek suñu borom defal leen tawféex. d'accord waaw mais tey Pape Mor Lo est-ce que mu ngi bàyyiwaat xel ci écrit bi nga xamante ni moom la jógee woon euh, ci père Birahim est-ce que waa écrit bi ñu ngi koy dégg est-ce que ngi jàppale booy yi nga xamante ne ñoo nekk foofu. waaw mm-hmm. ah booy moom chaque instant maa ñoom ñooy nekk mel ni ay ñoom agago ñoo fa nekk loo booy ñoom brise ay ñoom booy yooy ñoo fa nekk ak 2 Zika ay Amet ñoom ñoo fa nekk te chaque instant ñu ngi dégg maa fay dem booy bi si am combat dama ma koy wax même bu jëlee adversaire sax balaaj ñuy bëri dañ may kool wax ma ma wax leen ba pare su ma xamee adversaire ma wax leen sama conseil ku ci am combat bu ma ko yëgee dama siy jàpp. Eh, bi ma ñëwee tamit père Birahim suma père la moom dem nañ seetat seet. jubóo ngeen. non père mosuñu xuloo père di sama père <laughs> dama fay dem seeti ko dem naa fa bëgg dem rek fekk ma fa dem naa damay dem foofu këram all the time père làmb boolewuñu quoi. père sama papa la quoi. d'accord mais ancien gloire yi nga xamante ne tey ñu ci bëri ñoo yor écrit yi euh, ngay dégg yenn tawat yi yenn tawat yi te mbër yu baree bari yi nga xamante ne jaar nañ ci ñoom actuellement nekkatuñu fi est-ce que jotul ngeen boole seen doole pour mën di leen dimbale ñu bañati di leen wane wala di dem di leen génne. waaw mais loolu noonu xam nga mooy li ma lay wax rek CNG bu liggéeyul loolu du am parce que Amérique instant yii crise moo fa am feebar moo fa am mais am na ñoo xam ne tey liggéey ñu ngi foofu paa yi fa nekk liggéey bu retraité dañuy am seen passion dañ leen di fay chaque fin du mais làmb métier la ñoom paa yi dañ fi nekk bay seen waar tey ay waa CNG bu ñu nee toog bay lekk sa xaalisu làmb paa yooyu ñoo tax. kon ñoom tamit dañu am dañu am droit boo xamante ne chaque weer CNG dafa di comp dara ci xaalis boobu ñuy am di ko jox ancienne gloire yooyu muy seen retraite. parce que métier boo gis ci àdduna am na retraite danga nga war a bàyyi màgget ñu lay jox ñu lay fay. parce que ñoom ñoo ko liggéey ñoom dañu waroon am retraite comme ñëpp dañ leen war di compal ci li CNG boobu di am di ko jox paa yooyu di leen ko dimbalee si seen famille parce que loolu mooy yoon mais ñiy lekk rek ñooy lekk boo ci paree pare nga ci boo xool ñaata mbër ñoo échec ñoo bàyyi ñoo bàyyi làmb amuñ ci lu ñu jàpp amuñu luñ dundalee seen njaboot da nga leen di mujj gis ñii di dem en di garder ñii ñii di dem di defi leneen te làmb métier la nit di dañuy fay yeewu fajar di entraîné di fayee ko ay millions mais ñun paa yu njëkk yi ñoom amuñu woon loolu. kon dañ leen war di daggal si li CNG di dagg di leen ci jox chaque fen du mois ñu am lu ñuy mos loolu mooy yoon. Eh, dégg naa da nga doon waaj takk ñaareel fan la toll. non <laughs> takk <laughs> ma li <laughs> ma. waaw mais jàpp si dégg pare na di nga ci xam dara yow toogal xaar rek. waaw maa ngi siyaar ñëpp di ñëpp jàmm di wax ñëpp yàlla dugal soo yaay tamit ngeen ñaanal ko dafa feebar. ngeen ñaanal ko suñu borom yëkkati ko ko waaw parce que xam nga rek. maak suma mère dañoo mbapat daal. waaw moo tax xam nga maa ngi ñaanal maa ngi koy ñaanal bu baax a baax di ñaanal soxna si. da ngeen mbapat. dañu yàgg suma yaay suma suma suma fils la. mais sa fans club bi xanaa léegi tas na de yi dem nañ. ñu ngi fi nag fans club bi xam problème mooy ñoom ñëpp am nañ jëkkër léegi ñu ngi sëy parce que si biir fans club bi ñu bëri dañoo takkante noonu la demee woon mais teewul instant yi ñu ngi fi quoi man ak ñoom ay xarit lañ man ak ñoom ñoo far li ñu boole dafa bëri noonu la demee quoi. merci ñu ngi lay waaw mais kontaan naa laala maa ngi nuyu équipe bi yëpp di ñaanal ñëpp jaamu Sénégal yàlla def fekk ak tawféex ah, taysiir. ay ca mbokk internet yi gis ngeen lii lañ leen indiloon ah, Pape Mor Lo Yacine waaw nee na mi ngi nuyu Yacine. Ah, <laughs> d'accord léegi di leen jox dig daje xam naa ne beneen émission lay doon ak beneen daanaan bu ñuy dalal di leen jaajëfal ñoom ñëpp ñi nga xamante ne yombalal nañ ñu ko ñoom Yacine ñoom Matar Fall euh, Gibson production yombalal nañ ñu ko ba tax ñu mën ci jot ndax kenn mënu ko jot ay te di leen jox dig daje ñàkk abonné wóorul bët set nee naa leen fii la di leeree jërë ngeen jëf